tey nag ki ñu taxawal yaakaar naa ne du Sénégal euh, nga koy wax du it Sénégal ñoo koy laajte tabarkàlla mu def fi démb nag euh, def fi tey ñëpp bëgg ko mu doon référence nag wax dëgg yàlla euh, joué fi loo xamante ne bëgg sénégalais yi bëgg nañu ko yee nañu bari maman ñu ngi leen maa ngi leen di fay. maman Marie mat leen màggetul de. ah moom dañu xaw capp cappa rek waaye âge baa ngi fi de. <laughs> mais fi nga génn tey ak ni nga sañsee nii. waa xam nga bu sama xarit di sama rakk xewlee. ñu ni grand théâtre xam nga il faut toujours booy ñëw rek nga daal di ñëw à la dimension de tour wi rek waaw génne yu xaw kile yooyu. mais maman euh, sénégalais gëj nañ la gis namm nañu la euh, yaa ngi ndar wala yaa ngi yaa ngi Dakar wala da nga nekkatul Sénégal. maa ngi ndar mais nag euh, léeg damay seeti sama doom yi ndax ñu ngi nekk Lyon waaye temps yële génnoon naa tuuti ci Adja waaw. après temps yee def naa benn euh, ay séquence si benn film boo xam ne tv cinq la war jaar bu tudd Wara léegi euh, temps yi dugg naa idole dafa génnagul xëy na nekk yaayu Pendita ak Mary donc ñu ngi duggaat nànk-nànk pour mën a itam apporter suñu pierre à l'édifice ndax euh, buñ ñu woowee moo de am na xëy na lu ñu gis ne xëy na bu ñu ko ci apporter dana am lu muy lu mu indi si paysage audiovisuel bi mais li ñu gënaloon nag mooy am sunu yëfu bopp ndax xale yaa nga nekk ndar macha allah di ay artist yu bare yu góor ak yu jigéen ak ay xaleel mais encadrement la ñu amoon et dañuy ñëw ndeysaan vers nous pour qu'on leur serve d'escalier pour mën a atteindre seen ay objectifs mais quand il y a pas les grands moyens Euh, doo ko mën euh, def daa am xalaat bi tu peux leur donner des idées tu peux leur faire quelques petites formations individuelles noonu sa biir kër mais li ñu gënoon bëgg c'est vraiment de pouvoir faire de grandes formations ci écriture de scénario ci plateau euh, ci régie son lumière pourquoi pas pour que Saint-Louis devienne un jour le Saint-Louis Wood comme Nollywood, comme Hollywood, dont on a toujours rêvé, parce que Yunsuludek, c'est un riche patrimoine architectural, culturel et tout ce qui s'ensuit. Et donc, on a besoin de nous exprimer, de montrer ce qu'on sait faire et notre savoir-faire. Parce que Yalla may nañu ko nak xalé yëf nekk waru ñu leen bayyi ñu yëf yi nax saay ñuy nelaw loolu mooy suñu problème mais lan moo waraloon toogaay bu yàgg bi ñu gëj la gis da nga da nga da da nga bàyyi woon wala gars yi ñoo la woowul non gaañee jékki-jékki rek décrété ni dañu mag <laughs> muy lu nekk dëgg waaye waaye mag ñi itam am na yu ñu mën a apporter moom laa doon wax léegi ci kaw waaw mag nañu waaye mën nañ nekk nijaay kii Golbert mën na nekk nijaay mën na nekk paa mën na mën naa nekk bàjjan mën naa nekk yaay mën naa nekk magu yaay xel maa ngi fi ba tey xel mi naawul demul mi ngi fi toog di waaw loolu la. booy seetaan yenn série yi nga gis yenn colka yi nga xamante ni yéen daaw ko def ak yenn wax yu ñaaw nga xamante ni yéen daaw ko def ban yëg-yëg ngay am ci loolu. yooyu nag xale yëpp ngi ma commencé mere ne ñu tata temps yi ku ko interviewé wax ko lool mu daal ni waaw ma ni ko parce que ñoom may lu ñoo li tax ngeen laaj ma ko da ngeen ci teg seen bët et puisque dama ci teg sama bët xanaa mënu ma toog ni loolu amul ndax ñun ñëpp ñu ngi ci teg suñu bët man léeg ga nga dégg-dégg benn saaga ma defe ne xëy na kooku dafa rëccal mais puisque ni daf ko def kenn waxul dara parce que xëy na ñëpp bind nañ ko xam nañ ko il fait partie des plus grands ma gis ni léegi xale yu ndaw yeeg yëpp ku tourné rek da ngay daal di sa benn saaga kii léegi ma ñëw def ko nii nangam nangam te loolu ñun bokkul ci sunu yar waajur yi dañu yaroon ñu ñu ñu am un petit peu de doo ñame sax xool mag xool yu rëy yooyu ba ëppal sax dañ la naan ëppal sa rideau bët moo di xefal dañ y avait une bonne éducation boo xam ne dañ ñu ko joxoon mais léegi je crois qu'on est victime un petit peu de ce qui se passe euh, dans le monde parce que le monde est devenu un village planétaire di xew fii ma nga xew fële léegi yaa ngi koy seetaan yaa ngi koy gis moom mais ñu ko na ñu garder li ñu moom c'est vrai que le président Senghor avait parlé de de d'enracinement et d'ouverture mais ouverture ca la nga xam ne moom la Occident bi am ci lu baax ñu jël ko seet ñun nañ ko defee ba xam ne du du yëngal sunu piédestal bi ñu sunu maam yi tegoon jom fu la de ngor ak naan jomb naa loolu tànk yank sàlloo doo teg sa tànk fa fa warul c'est ngi lay